muy jullam bu njëkk ginnaaw bu mu doonee njiitu réew bu Sénégal président basir Diomaye Faye daal di amal julli korité fii ci grande mosquée bu Dakar imam ratib Aliou Moussa Samb moom nga xam ne moo daal di jiite julli bi daal di ñëwaat nag ci li nga xam ne moom la jullit war a am ngir li nga xam ne mooy gën a dëgëral ngëm-ngëmam wante tamit ba tey ci xutba bi moom imam bi ñëwaat na itam ci taxawaayu ndaw ñi ak mag ñi ci réew mi mooy booloo solidarité ak boole ñi nga xam ne itam ñooy mag ñi ci mbiru gouvernement loolu yëpp bokk na ci li nga xam ne xutba na ko tey jii ci julli korité bi lu salte lu ñaaw lu bëggandi luy dindi sa personnalité luy dindi sa dignité luy tax foo waxee ñu ne cam jaxase nit ñi bëgguloo kenn doo amax kenn affaire wóoluwuloo kenn àndulox kenn yow sa bopp rek loolu la julli tere ci nii nga xamee ne ñoo tudde seen bopp jullit julli dafa bëgg képp koo xamee ne kii da xam ne jullit la donte loo xamuloo ndeyam xamuloo baayam xamuloo ko moom si boppam su la wóoree na jullit rek li la yàlla def def loo mooy nga bëgg ko ku jullit gis moroomu jullitam rek daf koo da bëgg moom njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye di nag rafetlu xutba bi nga xam ne imaam ratib bi di Aliou Moussa Samba def na ko ci discours am ginnaaw bi julli bi jeexee moom Bassirou Diomaye Faye daal di ñëwaat itam ci booloo ak taxawaay mag ñi ci ñaanal réew bu Sénégal ba tey jii nii. di ñaan di ñaanal Sénégal di ñaan Sénégalais yi tamit ñu ñaanal Sénégal continuer di ñaanal Sénégal ndax fii lañu ñu am amuñu feneen bu mettee fii la bu neexee fii la lu ñuy sàkk muy suñu njaboot fii lañ koy sàkki. niñ ko jàppee nag ay nit teg ko ci suñu loxo ci jàmm noonu la ñu war a jëlee tamit te waxuma président de la république rek waaye sénégalais yi fiy dund yëpp dañoo war a sénégalais yi ñuy ñëw ëllëg ñu liggéey lu tax bu ñu ñëwee ñu xam ne Sénégal gi génération ba génération ku ci nekk def nga ci sa wàll ci jàmm ak jàmmal ba joxe ko ci leng joxe loxo yi ci joxe ko ci yeneen loxo ci jàmm ñooñu continue tamit di jàmm di di di di dox jàmm di wax jàmm di def jàmm pour Sénégal yi fi nekk yëpp mën a am jàmm julli korité bi nekk daanaka ñu bëri tey jii la ñu amal seen julli li nga xam ne mooy laydil fitre moom président de la république Bassirou Diomaye fay dal di rendre hommage bu mag nag ñi nga xam ne ñooy jàngale alxuraan di maître coranique ki imaam yi wante tamit moom Bassirou Diomaye fay dal di gërëm bu baax a baax xalif généraux yi ci seen taxawaay mu jàpp ne nag ñu ñu war a rendre hommage la ndax taxawaay bi nga xam ne am nañ ko ci réew bu Sénégal muy julli korité bu njëkk nag ginnaaw biñ ko falee mu doon jiitu réew 24 mars bi weesu Abdoulaye Mal daal di koy jaajëfal gannaaw jullik ñaari rakkaay ca Grande Mosquée Massalikul Jinaan imam ba di Serigne Moustapha